libéral dama nekk libéral convaincu mu jàngal nañu ne peu importe les institutions peu importe les personnes peu importe la coalition qui porte un projet l'essentiel c'est que lorsqu'on est intelligent il faut toujours savoir dire la vérité et la vérité dit aujourd'hui que en tant que parlementaire ce que j'aimerais qu'on comprenne c'est que la perception que les Sénégalais ont aujourd'hui c'est qu'il y a une crise qui s'annonce ce que les gens pensent c'est instant bi ñun am na nu ñuy doxalee te amul luñ ci comprendre ba tax na jàpp naa ne peu importe ku porter un combat l'essentiel pour moi c'est le contenu lan moo nekk ci biir indi nañ fi ay documents wax ñu ne que am na ñoo xam ne jàpp nañ ne am na lu xew mu lëndam seen ay xel ñu bëgg xam lan la man mii di député xam lan la mën na bañ a soxal kenn mais le peuple sénégalais qui nous écoute Le monde entier a envie de savoir qu'est-ce qui se passe en réalité. Raison pour laquelle je pense qu'on devrait aller vers cette commission parlementaire qui devra être composée de personne ñoo xam ne nii xam ne na dañ fa teg ak lan moo leen war ñu am jàpp ne que buñ ci eggee ba mu jeex tàkk danañ xam fan la dëgg féete te bu boobaa itam dëgg bi lu mën ci doon rek ñun ñi fi toogoon tey wax ko ba mu am nañ ko doxee waxee ko jëfee ko au nom du peuple sénégalais président man su wax du ci gudd léegi léeg sax bu ma jëlee kàddu fii dana jaaxal ñu bëri tey ma jël kàddu parce que ni ñu doxee lay politique mooy dañ naan tey kii xëy na yam newul ci mbir mi ankay ah juum nañ fii ku fi toog rek am nga lu la fi indi politique moo la fi indi waaye bu weesoo loolu itam on est là pour le peuple sénégalais on a été élu pour le peuple sénégalais et on parle au nom du peuple sénégalais on signe au nom du peuple sénégalais on vote au nom du peuple sénégalais et le instant bi xaw nañoo jaaxle ci suñu doxalin jaaxle woon nañ démb ak barki démb ba ñu doog commencé waaye tey gën nañoo jaaxle ci suñu doxalin ba tax ne man je m'invite moi-même et j'invite mes collègues à un peu plus par rapport à cela liñ ñu demandé yomb na trop un groupe parlementaire a demandé quelque chose le groupe m'impose le groupe m'importe peu le nom qu'il a sama yoon newu ci qu'est-ce qu'il a demandé qu'est-ce qui le motive et quelle est la vérité dans tout ça raison pour laquelle je pense qu'on devrait aller vers cette commission parlementaire et amul fast track na yéex na gàtt na gudd l'essentiel que la vérité soit dite pour moi merci beaucoup Merci, chers collègues. La, la parole est à notre collègue Nafissatou Diallo, suivi de Rokhaya Diop.